communication. Cheikh Ahmadou Bamba. la radio citoyenne. nous sommes ici à Touba Ndam. UCAB FM, la radio au service des populations. communication université Cheikh Ahmadou Bamba. xibaar yi fii ci UCAB FM ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye. ñaari waxtu ñaari waxtu ci bëccëg fegg na fanweeri minit ak ñaar ca Touba HLM jàpp Daaru Xuddoos xibaaru diggu bëccëg gi bopp xibaar yi ci gën a fees ñu fas yéene leen ko faram kuréel gi di nooru daare ni Touba ca kanam démb nag amoonum ndaje ngir waxtaane ci lu jëm ci wàllu ndox mi ginnaaw rek ba leen xalif général Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou sante rek ñu jàpp mi nekk fii ci dëkk bu sell bi la Touba dinañ ci ñëw ci waxtaan wu ñi ngi ko doon amal ak kilifa yi jiite wàllu ndox mi ba tey dinañ wax itam ci wàllu jàng ak jàngale franco arabe complexe Serigne Cheikh Gaynde Fatma ba nekk foofee ci Touba Xayra ñi ngi doon amal seenu bisub fin d'année ñoom nag ci rek décoré ñenn rek gën a xibaar yi dinañ demantam foofee tamit euh, ca Touba HLM rawatina ca siège yu Hizbut Tarqiyyah boobee nag ka ko jiite di sëriñ Youssou Diop nag yëkkati ay kàddu ngir indiwaat ay leeral ci lu jëm ci wàllu benn yi euh, bi sëriñ Mountakha moom sëriñ Bassirou Mbacké digle ci euh, biir réew mi dinañ wax itam ci lu jëm ci wàllu faj ak faju waa district sanitaire bu Touba doon fas yéene amal ab bis bu dañuy ñaax askan wi ci lu jëm ci wàllu CPS di campagne chimioprévention du di fexe ba ñaax askan ngir aar leen ci siburu dinañ ci ñëw ci xibaar yi ba tey mbokk yi dinañ ci teg lu jëm ci wàllu euh, politique euh, ki di professeur Daouda Ndiaye amalub ziar fii ci euh, dëkk bu sell bi de Touba ci kanamu xalif général Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou moom mi la di professeur Daouda Ndiaye di xam ne ne candidat la war a nekk mbokk yi lii lañ fi fas yéene faram ci ay xibaar nees kiis ñu ñëw ak ci ni mu gën a yaatoo Cheikh Bey mooy ki ne ci machine bi Mouhamadou Moustapha Ndiaye mooy ki ne ci micro bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou ngeen ñuy teewlu ci bande leen defee ñetti w point sunfm point com xibaaru digg bëccëg gi. groupe de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. CPS di campagne prévation saisonnière di paludisme muy ab euh, campagne bu ñu fas yéene amal fii ci dëkk bu sell bi de Touba ñu ko fas yéene def nag muy waa district sanitaire bu Touba li ñu ci jublu rek mooy nag aar askan wi rawatina xale yi am euh, juróom-ñetti at ba jàpp fukk ci jàngoro ji la di sibru loolee nag démb la dooroon waxtaanoo foofee ca district euh, sanitaire bu Touba tey nag ñu xëy nekk ci mairie bu Touba ngir amal fi ab CLD démb nag ca ndaje mañ doon amal foofee ca district bu Touba ka fa teewaloon Ndeye Maguette Diop mi médecin chef ba di docteur Mbaye Ndiaye yëkkati na ci ay kàddu ni ko fas yéene doxale ay kàddoom ñu àndandoo teelu ko ci micro soxna Ndeye Awa Samb Gueye ku wax sibiru tey wax euh, maanaam euh, taux bu xaw am njariñ boo xam ne nii moom lay posé ci wàllu jàngoro yépp donc euh, sibiru comme ni nga ko ne ci district sanitaire de Touba dañ ko classé stade stade rouge ku wax rouge mooy tey yaa ngi ci zone boo xam ne nii ba léegi sibbiru bi dafay wullee ñaay donc loolu mooy réyalité bi nga xam moo nekk ci district Touba ndax effort yi ñu def yépp des efforts ont été faits gis nañ ne wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax a baax côté ñi ko daan am ak ñi daan loroog loolu lépp wàññeeku na bu baax ba baax mais teewul ba léegi ñu ngi am ay cas de sibiru di am ay cas de sibiru tamit yoo xam ne nii yu jéggi dayo la loolu moo mooy analyse bi ñu def fii ci district sanitaire Touba. a peu près daal wàññeeku na. jàppuma ma carrément chiffre bi en en tête mais xam naa ne wàññeeku na mais wàññeeku bi yëpp c'est relatif parce que du fait que cas yi ñu ngi fi am ba tey ah du fait que ndox bi mi ngi fi taw bi mi ngi bëri yooyu ñu ngi fi donc ñun dañu nekk zone boo xam ne nii quand même. programme bi mi ngi bëgg ñu éliminer palu effectivement ci lancé boobu nañ ne des efforts ont mais ba léegi mi ngi fi loolu moo tax ñu jógaat tey takku ne dañuy dérouler waat beneen stratégie boo xam ne nii pour fegu aaru ci si la ñu koy wax CPS signe prévention du paludisme saisonnier. CPS 2023 comme campagne bi ñuy waaj def defe naa ñun district sanitaire de Touba bii mooy suñu juróomi yoon ñu koy def waaw nan ko daan defee li naa ndox du bàyyi yoonam. ndax euh, année bee passé ci présentation bi léegi maa ngi leen koy wax district sanitaire de Touba dafa atteindre objectif am bi nga xam ne nii moo doon quatre vingt pour cent ba au niveau national félicité neen donc fa ñu jaaroon ba am loolu fu ko raw fañ jaaroon dinañ fa jaaraat bu ñu mënee jaar fu ko raw aussi dinañ fa jaaraat ngir mën a am objectif boobu muy activité de sensibilisation. yëpp yoo xam ne ni war nañ ko mën a def muy ay plaidoyer yoo xam war nañ ko def ci leader religieux ci chef de quartier ci sëriñ daara yi ah, ci bàjjanu gox yi partout avec les relais formation des relais avec le CLD pour informe le euh, euh, pour ñu ñu yëgal autorités locales yi ak euh, autorités sanitaires yëpp PNCPS incha allah ñu ngi koy waajal fii ci Touba premier passage ñetti passage lay doon. muy premier passage deuxième passage troisième passage passage bu njëkk bi fii ñu ngi ko jàpp ci Touba du 14 au 17 juillet 2023 muy àjjuma bii di ñëw samedi dimanche ba alterné incha allah dinañ dugg ci kër yi fekk fa xele yi nga xam ne nii ñoo am ñetti weer ba fukki at 320 mois yoo xam ne nii amuñu dara loo xam ne nii moom nañuy tere pour ñu jox leen garab yi su ko defee ñu jox leen garab yi di dem ñetti fan ñu ñaan waajur yi ñu yaatal suñu ndaw yi xam ne ñoo leen yebal te xam ne aar sibiru dong moo ñu tax a jóg te ñu leen di ñaan aussi ñu préparer gune yi préparer gune yi mooy jox leen ñu lekk ba suur avant ñuy ñëw kon loolu moom dina ci baax te di leen wax ne ñoom assurance que ne médecin chef du district joxe ne instruction comme quoi comme ni mu daan demee képp koo xam ne nii am na effet secondaire bépp gune ñu yaakaar ne doom ban ko jox moom la su ko yóbboo hôpital bu ko gën a jegee incha allah dinañ ko faj te du fay dara. docteur mbay Ndiaye mooy euh, médecin chef district euh, mooy médecin chef centre de santé ba nekk foofee ca Kër Ñang moo fa teewaloon nag euh, soxna Ndeye Maguette Diop mooy médecin chef district sanitaire bu Touba noonu ñu leen ko waxee nag muy ab campagne bu ñu fas yéene amal doore ko nag fukki fanak ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru suet wi ñu nekk mbokk yéen a ngi wéy di déglu xibaar yi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw bu ñu jógee ci wàllu faj ak faju dañuy wax ci wàllu diine bi supp xasida wàccab kaamil wàccam alxuraan bi Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides sëriñ tax digle fii ci dëkk bu sell bi la Touba ak ci biir uh, réew mi lool yi nag uh, suba lañ ko war a amal lu ni mel nag waral waa Hizbut Tarqiyyah bokk ci ñi ñu dénk nag uh, liggéey bi yëkkati ci ay kàddu jëruñ ji di sëriñ Youssou Diop nag ñëwaatal ñu ci berre yi ni ñu ko fas yéene organiser ak ni mu fas yéene demee ci dëkk bu sell bi la Touba sëriñ Youssou Diop ay kàddoom ñaan doo teewlu ko. kàddu yi nga xam ne maa ngi koy jottali ci turu comité bi nga xamante ne ñu ciy liggéeyloo dafa jëm rek ci wàllu bernde yi yi ci bis bu mel nii bisu xaside yi daf ci am loo xam ne day baax ñëpp ñu xam ko ngir liggéey bu mel nii saa bu dikkatee it ñu xam ne lii mooy nosu gi ñii lay tëddee xaside yi moo indi berne yi fonkeelu xaside yi moo indi berne yi te fonkeel googu dafa war a àgg ci pësteef ci nun foo xamante ne buñ ci jëfoon loo xamante ne day ëpp mbooloo mi ñëw bu ëpp leen ëpp goo xamante ne dañ koy jal wala euh, di di di di wetti loolu sax bu doon am war ñoo xam ne jotuñu ak xaside yi su nit itam dikkoon njàngum xasida mi indi ko mu xëy suba ba jant soo mu mel ni ber bernde yi ak teraanga yi agsiwul ci moom it loolu dafa war a woyof toy ci moom ndax lan suñu xel dafa war a dem ci ki bind xasida yi te mu wóor ñu ne duñ jot àqam te fa mu ko doon bindee xariban la dal ahdaa yi la wéet ci diggu noonu yi te mësta salit kon fonkeel googu buñ ci waxtaanee day baax dellusiwaat ci nan lañu ñu war a nosee bernde yi gis naa ñu bëri euh, di sos ay waañ te at yi ñu génn ni ñu liggéeyandoo ak ñoom ñun xam nañ ne waañ woo xam ne jël nañu nag jox la wala ñu indi dara jox la ko dolli nga ca loo xam ne mën na ko ñaar ba kon fonkeel gi am li ñu des nag ginnaaw mënee su cee def lu ëpp te mënee su cee def lu ñu xeeb kon li ci am solo kenn ku ci ne na sellal la muy def def ko ngir jëmmi Serigne Touba loolu moo ci am solo waaye jëmmi dayoo bi ak nu muy toll foo ko yemale rek la ca des mottalee ko sa yéene te xam ne sëñ Tuubaa kenn mënut a jot àqam may wax ne Hizbut Tarqiyyah taxawaayam ci bis bi mooy xam nañ ne sëriñ bi dinañu toggaloo am na ñeneen ñoo xam ne sëriñ yàgg na leen toggaloo ci ay bis yu mel nii lu mel ni wilaaya sëñ daan na leen toggaloo am na sëñ daam surang sëñ bi daan leen togg am na njaboot tamit ñoo xam ne daan na leen toggaloo ak ñeneen ak ñeneen kon ñun euh, sëriñ bi naka jekk dinañu toggaloo ci bis bi loo xam ne la mu ca bëgg dinañ ko ci def waaye li nga xam ne it mooy organiser gim ñu organiser loo nos la waaye firiwul ne Hizbut Tarqiyyah dafa yittewoo nit ku yor nag ne naa ko yóbbu Hizbut Tarqiyyah nit ku yor loo bëgg a ci bis bi ne naa ko yóbbu Hizbut Tarqiyyah loolu li tax ma koy leeral mooy soo ko toggee man ñun de moo nu gënal boo yoree nag war ko indi fii nga fàggu lu koy togg toggaloo ko sa njaboot toggaloo ko ñi la jege mooy li ñu gënal su la loolu téye it mënoo ko nga xool fii la gën a jege te mu wóor na fii ñu ko fay dundal ci njàngum xasida mi loolu boo ko fa yóbboo ñu mën ko fa euh, yaatal mu jëm ci mbooloo mi loolu moog nga indi ko fii ci Hizbut Tarqiyyah ñun ñi ko sëñ bi di taxawloo mooy am képp ndax tey jii mbooleem kër njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne ñoo jumaa ji fu ci ne wàññee nga fa te njaboot ga fa ne takkatoo nañu noo xam ne yor pësteef boo xamante ne seen alal dañ koy def ci bis bi kon ku ñëw buntu kër sëñ Ablaat daal di fay ne ne sama nag wii dama ko fii indi ngir mu jàpp ci togg yi loolu na la wóor ne ñooy waxal du fa jafe ndax kër ga di nga fa fekk ay nit boo ko defee kër sëñ Fallou kazalika na ko noonu boo ko defee mboolem kër yi wër jumaa ji kër sëñ Abdou Khadre kër sëñ Saliou fu ci ne di am ñoo waxal te dina tàbbi ci bis bi loolu it liñ ci jublu ci di ko leeral ni mooy Hizbut Tarqiyyah dañ ko taxawuloo ab liggéey boo xam ne moom laxasaay la ci yoon waaye jiitewul jiite goo xam ne dafa yittewu mu mel ni ak pal wala mel ni di dajale di séddale booy dajale di séddale da ngay dajale attan bésub Sëriñ Tuubaa bu mel ni bésub xasida doonul loo xam ne xaj na ci barab murit yëpp kenn ku ci ne da nga cee taxaw la ci sa wàll loolu mooy liggéey boo xam ne bu ñu ko xoolee lépp daal di rafet. boo demee ci euh, daaru minam sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Hakim ni mu taxawee ñun xam nañ ko ndax nee na euh, fii moom incha allah ginnaaw ñun la ñu féetale waa ahlu min ahlu minam la ñu féetale penc mii ñu fi jàng ñoom ñooy war a dalal waa Njaareem ñooy dalal ñooy war a dalal waa Kaolack ñooy war a dalal waa Bambey ak waa Fatick waaye nee na. lu ñu fay togg mu jëm ci mbooloo bi incha allah ñoom dinañ ko taxaw ku mel ni xam Xamsatu it dama bëgg a dellu siwaat ci wax ne dafay wane aw yoon ndax bëgg-bëggu sëriñ bi rek lay xencu te ci la taxaw moom day sakk ay wàññ yu bëri bëri bëri yoo xam ne day togg loolu mooy noppal ñëpp mooy noppal ñëpp bu boobaa ñun suñu liggéey euh, ànd ak njabootam ànd ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk liggéey bi muy waa Muxaddamatul Xidma waa Rawdu Rayahin waa waa waa waa waa waa ci kanam waa wilaaya ñëpp rek dañuy bokk xam ne fu ñu nekk rek séddale mooy liggéey séddale mooy doon liggéey bi te defee ko defin wu sell jigéen ñi seenu soññi am na ndax soxna maam xari doomi sëñ Murtala moom woote na nee na euh, togg yi muy togg sëñ Murtala kër ga buntu kër ga ak li ko wër dina def ba fu mu mën a yem te lépp lu ci war moo koy fàggu loolu taxawaay boobu moom la soxna maam Issa lu café di def taxawaay boobu soxna soxna Astou moom moom si Abdoulaye borom dër bi moom lay def ak ñeneen ak ñeneen limaale wu ma nag ñi ki nga xam ne suñu wayjur la di koo xam ne togg moom ku ne da ko cee xam muy soxna Bali loolu dafa doon loo xam ne naka jekk yittey sëriñ bi moom fu mu taxawee taxaw na doon bàyyi faalam di ci liggéey liggéey boo xam ne ku ne war na cee mën a bu kenn jàpp ne dañ laa wax ne jël sa alal ñëw indi ko ci bis bi nanguluñu la ko déedéet waaye dañoo bëgg fi la gën a jege nga bañ koo jeggi bu dee ñëw fay dundal bis bi waaye fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ñun lu fi ñëw itam dinañ ko booleek li ñuy def incha allah ndax ñun bu doon lu sëñ bi ma mës a amle rek ay soldat la ñoo xamante ne ñoog murit yi dañu fas yéene rek di sóobu ci liggéey boobu lu sëñ bi wax ñu def ci la ñu mën ak lu ñu mënul Serigne euh, su Diop euh, moo jiite euh, daayira daayira bii di Isbu Tarxiya waaw lool yi nag mu ko doon di ay kàddu yu leeral jëmale ko ci bernde yi ñu fas yéene amal nag ci bisub ginnaaw suba bi muy bisub xasida bi Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou Mbacké digle mbokk yi dañuy wax ci leneen muy ndaje mu ñi ko doon amal démb ñu mooy waa Touba ca kanam jëmale na ko jëmale ko nag ci ñenn ak kilifa yi yor wàllum ndox mi te nekk fii ci dëkk bu sell bi de Touba loolu yi nag ñi ko amal ginnaaw nag ñoom ñi la di waa Touba ca kanam ba ñu jotee ndigal ci xalif général Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou ngir rek ñu euh, jàppale waa ñi la di euh, Serigne Moustapha Dieng ak waa OFOR rek ñu yor ndox mi ngir rek ndoxum Touba gën a mucc ayib waaye tamit gën a jëm ca kanam ca ndaje ma nag noonu ñu leen ko waxee ci teewaayu Serigne Abibou Mbacké moom Serigne Fallou lañ ko doon amal loolu yi sax waral moom kilifa gi yëkkati ci ay kàddu indiwaat ci ay leeral ci li waral mbir mi ak itam ni ñu fas yéene jàppee Serigne Abibou Mbacké moom Serigne Fallou ay kàddoom ñaanandoo teewlu ndigal li muy jóge si Sëriñ Muntaxa keroog di gaaw ci ngoon waxtu yi daanak temb ñooy tolloo bu ñu jël tax sama loolu fekk ma am fa àndoon suñu abo suñu kilifa dem fa muy mu woo ci boobu maa oto bi mu woo ma wax ma ndigal li mu ak ñu jàppale ko ci liggéey bi ma saa si woo ñu ko jo ñu a jokkoo loolu bu fa tàggee woon naa ko wala si Abdou Lahad wax leen leeral leen suñ bi wax mun saa yi ci boobu moo jox téléphone wax ko dañ ko def gën a nañ ko wax la wax maa ngi kon maa ngi nuyu kilifa yu teew la maa jël na nga jox jot li bokk fi teew nuyu sëñ Moussa Dioli ak sëñ Abou Xasida bokk fi teew nuyu sëñ Moussa Dieng maa warxamati waaye nuyu sëñ Bamba Sarr effort ak Abdou Fatah mi ñun dong yi ci biir muy muy muy ñu nekk ñu arrêté ñu ànd yëpp rek Eh, sëñ bi damaa woo ne ma dafa am ak jaaxal lool ci liggéey bi ndax ndox mi da ko jaaxal loolu daal ndoxum Tuubaa mu xam ne Tuubaa ci kanam kat jumtukaay sëriñ Tuubaa la mu bëgg ñu jàppale ko liggéey bi jàppale ko ci ndox mi pour eh, ma sëñ Moussa Dieng eh, mais leer ñëpp na ndox mi Tuubaa ci yoru ko sëñ Muntaxa waxuñu yor ko tim loolu leer nañ nit ñi yoruñu ko waxuñu yor ko sëñ Moussa Dieng mii moo ko yor maa ur rahmati ci boppam mooy yor ndox mi waa Tuubaa ci kanam dañoo jàppale si lañ ci ndax bu nee bu nee dañ ko yor ñu mënuñ ko xam bi amuñu ko amuñ man-man bi loolu danaa ko leer naa ñun ñi li ñu yam dañu sëkk buñ ci dolaatee leneen góorgóor lekk ñu def waaye na leer wala ñu dem fenn diw mooy sëriñ Muntaxa di ko laaj ndigal wala ju dara moo ma téléphone wax ma ma wax ne man ma nañ ma ko yoral ni ma jàppale nañ ma jàpp ci ndox mi jàpp ci Moussa naa ko mu ñëw ngeen waxtaan ci baax a baax loo loo ci xalaat nga wax ko nga ànd ci liggéey boobee loolu mooy saw moo bi mais boote na ma ne suñ Moussa na nga ñëw waaye suñ Bamba Sarr na nga ñëw Abdou Fall mi moo yor seen numéro ma daay woo si Moussa Doye li mais ne ko na nga ñëw yi ndax waa retraite li ma jublu mooy yi nga xam ne seq liggéey bi maa uramati yow lañ jox liggéey bi yow mii lañ wax jàppale ndax gis nañ am na sooxe te Touba ci kanam ak li Sëriñ Touba la jumtukaay Sëriñ Touba ñu ngi nekk li ñu am moomu ci dara bu sëñ Mountakha ne na fi am tey bu ñu tey ñu ñëpp Sëriñ Touba ñu bàyyi bi ma la woowee nga ñëw ma woo sëñ Bamba mu ñëw mooy itam ci laa woo si Moussa Doye ko ñëw arrêté yéen a xam terrain bi xam jàngoro yi fi nekk ci dëkk bi saafara si nag yow mii la ñuy jëriñ Moussa yow mi yow mi yaa yaa yow mi yow mi ñu liggéeyal ànd yow liggéey bi Touba ci kanam nag moom li ñuy doxee lañ bëgg leer ñëpp boo ngeen gisee nit ñi am ci yeen qualité jëkk seen àll dina jox ak leer a la nit ñi képp koo xam ne yaa ngi gis seen kanam dee leer la yee def si diggante ñoom koo defu ñu ak mën na leer leer ak gi leer bi na ko bàyyi teg bi na ko bàyyi ëllëg man nag lu ñappee leer man gën naa ci doomu aadama jël seen àll jox ñu ngir Sëriñ Tuubaa fi ñu ne ko laaj nañ lu ñu mën nañ ko def ñu xam lii mooy saw mooy mooy mooy mooy mooy Touba ci kanam buñu demee ba am ci kuréel yi bari ci dëkk bi waaye bu suñ Touba suñ Muntaxa demee ba xalaat ne Touba ci kanam kat mën naa jàppale ci mën a ndox mi ngir ñoo am ci solution du ci xaalis bi ñu du leen waaye pas-pas la xool ñun yaakaar ne bu ñu ko joxee bu ñu joxee pas te pas-pas lu a amut parce que boobu la suñ Muntaxa xool ci ñun moo tax mu woote na ñëw liggéey suñ Touba ànd ko suñu Moustapha Dieng jàppale ko ci liggéey saw bu bi sëriñ Abibou Mbacke mi jiite Touba ca kanam ca ndaje moomee nag noonu mu ko waxee sëriñ Moustapha Dieng ma jiite maaw raxmate nga fa woon moom it yëkkati na ci ay kàddu ñu àndandoo teewlu ko. bu ñu waxee ndox mi day dégg ñu la maaw raxmati ne la effort dañ cee yokk sax moom hydraulique xëy na dana xawoon a baax tuuti ñu xaw leeral diggante bi tuuti xam ne kenn ku ne niveau d'intervention. puisque xam nañ ne hydraulique lu mel na li ñuy wax joxe dox. nit ñi naan ko kooku li ñuy wax service public la état moo ko yor service public comme ni yore santé yor ko service public leneen ak leneen loolu moom moo état bi moo ko yor ni ko yoree ca Kaolack ak ca Kébémer la ko yore fii ci Touba maa war a mati li ko ci dugal mooy xëy na ci euh, philosophie murid laay wax sax nga xam ne lu lu ko waay defal it da koy ànd ak yow mooy bi ñu fi nekkee taawu sëñ Saaliw li ñu fi nekkoon wax amoon lañ naa am ay jafe-jafe yoo xam ne xëy na léeg-léeg sa ba la koy waral du am solo mën naa bañ a mat sax cinq cent mille francs wala nangam mais bu ma saa am ñi fi nekkoon ci ci service hydraulique bi dañ koy remonter ci seen service mu dem ba Dakar ñu def ay commande bi dem naag léeg am pièce bi dégg naa ko waxee sëñ bi xëy na ay kilifa sëñ ñàkk ndox gi nga xam ne forage day taxaw ay verre di naan ab la ko kii kon nañ nañ leen seet jàppale ci liggéey bi nañ jàppale waa hydraulique moom noonu la ko waxee woon xam nga jàppale ci liggéey bii liggéey loolu maa ma ci créé woon bi ñu ñëwee ñoom ci àll yu nekkee ñu daylu liggéey biñ dayee liggéey nag li tubaab di wax convention lay amoon buñ seq mais convention ba du convention buñ bindoon ñu ko woon xam nga mais dañoo dayaloo rek nga xëy na ñu wax na état bi comme moom période boobu moom mooy defar forage bi na état bi continuer defar forage lu mel ne matériel yi wax fii ay colonnes yi ak pompe yi surtout pompe yi na ko état bi continuer di ko fournir ak élément accompagnant yooyu mooy colonnes yi mooy kii câble yi xëy na matériel électrique yeeg matériel de réparation fii di ñu ne maa war a amati moom na leen jàppale ci loolu loolu lañ doon def loolu mooy fa lañ tàmbalee woon di liggéey ci noonu ba nga ni ci noonu lañuy ci fii boobu la ñuy liggéeyee bu nee na état bi defar forage it xëy na kooku mooy principe bi mais dem nañ ba gis fi ay talibé yu defar forage xëy na état bi moom da koy wax mais ko ca mën a fekkee pompe yi état bi dana ko defar mais dinaa Touba kanam di jënd na ay pompe sëriñ bi dafay jënd pompe ak ñeen ak ñeen am na même ay taalibe yoo xam sax danañ jënd seen doon noonu lañ doon noonu lañ doon liggéeyee sëriñ Moustapha Dieng mooy jiite Maawu Rahmati moo doon yëkkati yooyu kàddu noonu ñu leen ko waxee Bamba Sarr mi jiite OFOR it ma nga woon ca waxtaan moom itam yëkkati na fa ay kaddu ñu àndandoo teewlu ko moom it jafe-jafe ndoxum Touba yàgg naa koo wax nekkul lenn képp koo xamante ne lenn rek loo xam ne dañ ci dut baaraam rek ne lii kese la ay problème yu daje la mën naa ci lim tuuti rek parce que bu mën na naree lim yëpp dafay gudd waaye bu ma ci limee tuuti rek aslëf yi nga xamante ne ñoo ci ëpp solo peut-être yi nga xamante ne yooyu noonu war nañ cee wut saafara nu mu gën a gaawee wala bokk war nañ cee wut ay matukaay peut-être yooyu noonu yaakaar naa mën naa yóbbaale yeneen ñu ndax ba bokk na ci benn bu njëkk bi fi gën a tuuti laay commencé mooy façon ba ñuy branché wala façon ba ñuy liggéeyee extension yi muy façon travaux de manière globale ci ñi nga xamante ne nii mooy ñi fi ne boobu aussi en tout cas boobu bokk na ci benn beneen bii aussi mooy ci forage dama ñëw ci réseau bi mooy branchement yi mooy dem ci forage yi forage yi la jafe ëpp yi fay am bu njëkk bi mooy guru bi ñetti guru yi ñoo amoon wala bokk su ma juumulee Fapal dina ma rectifier li ci amoon ci guru ci Sénégal loo xamante ni na ci état bi ñëw ci hydraulique bariwul bu matee juróom ca la yam ci statut spécial am ñu yëkkati groupe jox ko yeneen biir yi nga xamante ne nii ñu ngi nekk ci euh, Sénégal yëpp paan nañ ba mu des pour ak bu Louga bu Louga moog giri Touba ñoo yem ñu ngi ci toll ci sukuraat ba tax na keroog ba fi ministre bi ñëwee moom mu waxal ko boppam ne dinañ ñu ay groupe ba man ñu tey jii fi ne nii bokk naa ci ñi nga xamante ne ñuy wër groupe ci àdduna bi wax ma ci Sénégal rek ci àdduna bi pour jur yu conforme par rapport ak ñun suñuy wàllu liggéey ba bëgg ci commandé lim ba jox ci benn Touba jox yeneen euh, euh, dëkk yi nga xamante jot naa leen ay jur parce que jafe-jafe boobu noonu du Touba képp loolu noonu jur boobu bu paanee wala boog bu amee jafe-jafe moo waral bu paan amee ci forage bi war a jël temps lu tax parce que balaa ngay dem di intervenir foog nga réparer sa jur ba léegi léegi rek mécanicien mi ngi may envoyé message jur ba dafa paanam boo xamante ne tey jii fi mu ne nii loolu moo ñu indi jafe-jafe bu baisse de débit amee ci forage balaa nga fay dem di def intervention baisse de débit bi dina yokk baisse de débit moom mooy turu en général du loolu képp en général mooy turu yi nga xamante ne ni am na ci élément de colonie ou bien en tout cas élément de colonie day am ay bën-bën parce que lu waral loolu noonu xorom bi moo koy lekk su ko lekkee day dem ba nga xamante ne lu mu pompé day jàllaat ci suuf ba tax na loolu la bu doon génne téeméeri mètre cube ci waxtu dana ko wàññeeku daanaka sax du mat sax juróom fukki mètre cube ci waxtu loolu mooy tax ba yenn gox goxaat yi pour ndox ma yegg fa problème la boobu bokk na lim yi wax dëgg yàlla bu ma ko naree wax day jël temps wax dëgg yàlla comme dañoo war a tënk rek boobu bokk na ci leneen li nga xamante ne tamit aussi wax nañ ko sànq muy manque de moyen bi loolu c'est global te du ma dugg ci ay précision mais manque de moyen am na ba tax na euh, di rafetlu jotaay bi di rafetlu tamit aussi vraiment euh, wax dëgg yàlla di ñaan bi yàlla na fi yàggul lool te ànd ak wér parce que euh, suñu yaakaar tey ak ëllëg yaakaar naa ne tey jii fi mu ne bu ñu fi dajalee nañu kat ni ngeen wut ay pexe wala boog ni ngeen wut ay saafara tey jii war nañ balaa ñoo génn ci saal bii ñu fexe ba saafara yooyu noonu ñu teg ko bokk na ci li ma wax nii juri bi bu njëkk beneen ba ca tegu muy équipement dëgg jour yi équipement dëgg jour yi dama ko globaliser mooy élément de mooy pompe mooy câble mooy lépp loo xamante ni day jëm ci biir forage Euh, kooku di euh, Bamba euh, moo jiite Ofor ndox mi fii ci dëkk bu sell bi la di Touba noonu yi mu ko waxee nag waa reeteet ña nga foon sëriñ Moustapha Mbacke Doyoly ma nga teew lu ngeen ko démb ci xibaaru guddi gi ci kàddu yi mu yëkkati dénk ko Cheikh Amar ci journal bi Pape Saer doon def ci rajo UCAP rajo université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi ñu wax ci leneen jëm ci wàllu ASCODEL mooy association communautaire pour le développement local ñu ngi woon nag ci Mbacke tàggat lu toll ci juróom-benn fukki ndaw ak juróom ci jëm ci wàllu de projet maanaam ana na la ñuy fexee ba am seenu euh, gestion seenu euh, entreprise bopp ak nañu koy yoree ka ko doon amal nag di président ba di euh, Cheikh Diop Fall yëkkati na ci ay kàddu ñu àndandoo teewlu ko. association bi nag li ko tax a jóg mooy taxawu Mbàkke ci développement ci fànn bu nekk surtout ndaw ñi jigéen ñi ak tout tànk yi loolu moo waral tey. ci li nga xam ne mooy suñu objectif ñu organiser tey séance de formation bi nga xam ne dafay dem ci nit ki li muy mën a yoree li nga xam ne moom mooy entreprise am ci loolu tey bëggoon nañoo am objectif formé juróom fukki ndaw yoo xam ne bu subaa dinañ mën a demal seen bopp xalaatal seen bopp seen projet jéem koo doxalal seen bopp waaye demande bi fi mu toll tey Mbàkke xam ne nécessité la moo tax yokk nañ ko ndax li ñu jotoon ci demande mënuñu ko war a def ba def li nga xam ne moom mooy lu mat 65 personnes formé nañ leen tey donc ñuy wax ne aussi ñu ngi woo képp koo xam ne développement ñor na la képp koo xam ne li nga xam ne moom mooy Mbàkke ñor na la ñu noo lay tàll suñu loxo nga ñëw jàpp ci liggéey bi xam ne liggéey bi defuñu ko ngir ma sàmba wala mu ngir ma dem waaye dañ koy def ngir Mbàkke ndax formation yi nekk na formation yoo xam ne Mbàkke da koo soxla waaye li muy jar dafa xaw a cher lool ci marché bi kon bu ñu amee association yu mel ni ASCODEL ñu koy taxawal ci gox bi laaj na ñi nga xam ne dañ leen di gunge ñuy remercier aussi li nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne jàppale nañ ñu di wax itam tey def nañ association benn formation boo xam ne formation bu inclusive lañ ndax ñi nga xam ne mooy suñu mbokkee laago yi handicapé yi participer nañ si massivement avec une taux de participation boo xam ne dem na presque de 20 pour cent kon tey jii nii ñoom it boole nañ leen si formation yi te jàpp nañ ne buñ jógee ci lii tey dinañ mën a doxal seen bopp ba li nga xam ne moom mooy seen situation d' handicap mu bañ a nekk benn frein pour le développement de Mbacké ñu ngi tàllal loxo itam kii li nga xam ne moom mooy club C50 de préférence nationale fondation 221 le BAOS ñi nga xam ne ñëpp ay structure lañ nekk si Sénégal ay doomu Mbacké nekk ci nekk ci Sénégal ay doomu Mbàkke jiite ko ñu ngi leen di tàllal loxo xam ne association bi li fi nekk pour waa Mbàkke la li liñ ko tegee pour waa Mbàkke la pour ñu accompagner leen ci li nga xam ne moom mooy développement ci forme bu mu mënti doon. formation bi nag def nañ ko waaye nag dinañ leen mën a gën a gungewaat accompagner leen coacher leen mu bañ a nekk rek formation yi fi doon jaar former leen jox leen attestation bàyyi leen dañ leen gunge accompagner leen encadrer leen bu bu ëllëgee fii ak weer at ñaari at. ñu ne woon kat ñii lañ ASCODEL formé woon ci formation ba ñu jógee tey ji dem nañ ba mënal seen bopp ba war a mën a nekk sax ñoo xam ne ASCODEL bu soxlaa si ñoom lay compter pour ñu mën a réaliser suñuy projet Cheikh Fall Diop mooy euh, président ASCODEL bis boobee nag ñi doon amal muy diplôme yooyee ñu doon joxe ka ñu bàyyile woon bis ba nag muy parrain bi di Serigne Mbaye Mbacke Madina Cissé moom entreprise la jiite waaye tamit mooy coordonnateur national euh, kuréel gi di fondation 221 moom itam yëkkati na fa ay kàddu ñu àndandoo teewlu ko. initiative bi c'est une très bonne initiative initiative bu rafet la parce que entrepreneuriat tey dafa toll foo xam ne nii tey en fait moom mooy doxal réew mooy bànqaas bu réew parce que xam nañ ne taux de chômage bi dafa bari te en fait état bi. mënul jox ñëpp liggéey kon bu ñu amee ay doomu Mbàkke yi ci mel ni Cheikh Fall Diop ànd ak seen ay partenaires pour jàppale ndaw ñi ci wàllu entrepreneuriat pour former leen pour ñu mën a nekk ay actifs de la société kon loolu nekk na lu nga xam ne en fait lu ñuy lu ñuy rafetlu la waaw man mi di wax ak yéen di Serigne Mbacke Madina chef d'entreprise la te bi may demare dama commencé ci zéro ba nga xam ne tey fi ma toll nii maa ngi suma entreprise maa ngi employé plus de 350 jeunes sénégalais loolu nekk lu am solo Euh, suma frères yi di ñaax suma mag yi que ne entrepreneuriat nekk na lu nga xam ne ni tey en fait lu am solo la ci réew te dafay doxal am réew kon nañ ci dem voilà euh, bu kenn xeeb dara même ak 25000 francs wala même ak 20000 francs même ak 10000 francs mën nga ci commencer parce que commencer lu bare bari te xamu fi nga jëm it Euh, jàpp naa ne nekkul la gën nit ki da ngay jóge ci suuf partir de zéro di lal di lal di lal ba yàlla may la li nga bëgg kon maa ngi woo jeune ñëpp ne euh, nekk euh, en fait Euh, nekk entrepreneur tey bokk na ci li nga xam ne ni tey mooy suqalim réew bokk na ci li nga xam ne ni tey mooy doxal réew kon initiative bi ñoom waa ASCODEL jël mënuñ lu dul di leen ci jaajëfal di ñaan jeunes yi te tamit di ñaan sincèrement les autorités ñuy jàppale ñu mel ni tey en fait association yi pour que seen formation ñu gën koo mën a ñoŋal parce que formation yi dafa laaj ay moyens dafa laaj ay budget seen ñeme dépense yi nekk te ñoom rek xam-xam am rek wax dëgg yàlla fayeku wuñ ñu ko dafa doy sëkk kon nag buñ ci boolee leneen dafay gën a métti te ndaw yi soxla nañ ko loolu demande bi am na solo lu mel nii lu nga xam ne nii formation la xam bu ñu jox say ñooñ maanaam xam bu ñuy jox say doomi dëkk jàpp naa ne tey wax dëgg yàlla autorité képp kuy autorité ci Mbàkke tey waroon na ko mën a waaye man damay jàpp ne loolu am solo li ci am solo rek mooy gëm-gëm bi en tout cas nit loo nekk lu ne rek na ko gëm loo nekk ne rek na ko gëm parce que euh, euh, à chaque fois li may faral di wax saa yoo wootee mbir am na ñoo xam ne dañuy gëm yow la ñuy gëm li nga leen woo baax na li nga leen woo bon na ñoom loolu seen yow nekk yow la ñuy gëm am na ñoo xam ne duñ la mës a gëm am na ñoo xam ne li ngay def saa bu amee jeexital maanaam ay njëriñ wala ay meññeef jóge ca ñoom bu boobaa tey dinañ la gëm te dañ la fekk si kon waa ASCODEL man ci côté boobu laa leen di woo ngeen fexe ba li ngeen di def ëllëg si biir ñi ngeen formé fii ñu mën a créer seen ay entreprise am seen ay euh, projet ñu oriente leen vers les sources de financement qui leur sont accessibles pour que ñu am ay financement pour que tey ñu mën a ñu mën a nekk ay chef d'entreprise tey loolu bu amee rek yaakaar naa ne tey képp ko leen woo incha allah ma dina ñëw. Serigne Mbacke Madina Cissé moo newoon parrain ba foofee ci remise de diplôme bi ñu doon amal. Euh, foofee ca mairie bu Mbàkke mbokk yéen a ngi wéy di déglu xibaar yi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo file ci Touba Ndam ginnaaw loolu yi dañuy wax ci wàllu njàng ak jàngale noonu ñu leen ko junje woon bi ñuy euh, xibaar yi waa complexe euh, Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ba nekk foofee ca Xayra de na nañu bisub conférence muy bisub fin d'année bu ñu doon amal foofee loolee nag ñu sukkandiku ci rek pour sargal ñenn ca ndongo ya gën a ràññeeku lool yi nag waral ñenn ca jàngalekat ya yëkkati ci ay kaddu soxna Maam ñëwaat ci njëriñ lu jàngale jàngal gone yu jigéen yi am na ko am na ko solo waaye tamit dellu si ci téyegu war nañu koo téye xale yu jigéen yi ci école bi soxna Maam Jaara Bousso Diouf di jàngalekat foofee ca complexe ba ay kàddoom ñaan la doo teewlu ko maa ngi ñaan parents yëpp ñuy dugal xale yi ñi nga xamante ne jotagoon ñoo dugg mais ñu ne si xal si école yi surtout ñu bàyyi leen ñu yeegal seen njàng sa njàngum jigéen am na solo surtout maa jamono ji fu mu toll nii. benn si man dem naa ba université te gis nga ak âge maa ngi ñëwaat fii di jàngale te jamono ji métti na métti goo xamante ne dina dem fu muy toll góor baax na jigéen. baax na kon lu may ñaax daal di waat mooy waay waajur nañu jàppale ba nga xamante ni xale yi jigéen dina mun a jëlee si école mais dina mun a continuer ba dem seen def seen cursus universitaire. ndax léegi luñ gën a seetlu mooy booñ buñ duggee jigéen ñuy ëpp mais buñ dem ba wàll université góor ñu ñoom ñooy ëpp. alors que góor baax na jigéen baax na. fii moom nen parents yi nañ am xel mu dal si jigéen ñi booy xool seydaa yi dañ ciy wax. madame yi aussi dañu ciy wax ak oustaz yi dañuy veillé ci xale yi dañuy veillé si xale yi ndax gis nañ jamono ji fu mu toll dafa jamono ji dafa toj lool moom moo tax parents yi xam naa di am yenn dut yi mais loolu na dañ ci seen bopp fekkente ne fii si suñu école CFA Gaïndé Fatma xale yi dañuy veillé si ñoom à chaque fois xale bu ñu génnee récréation te dañ la ñu bàyyi xel bu ñu dugaate même bu ñu ñibbee dañuy def contact ak parents yi dañu am aussi groupe ak parents yi lépp luñ gis loo xam dafa anormal mu war ta nekk si xale bi dañ koy wax. dañ lañu pousser aussi ñuy am bon comportement di sol sol yu jot yu yiw sol seeni tëddi di dugg di wàcc heure xam nga loolu bu weesuwul nga wéyee ci ci xale bi si loolu noonu teg ci di leen tettal parce que lan la école ñu suñ école bi lan la jàngi la xam-xam mais yemu si jàngi la xam-xam mais dañuy def yar parce que dañ naan ñaari bu mel ne munte munta ñàkk na doon yar bi moo tax nag parents yi foofu nañ si am xel mu dal xam ne xale ñi ngi wéyee si ñoom parce que école bi li ci ëpp ay jigéen la moo tax dañuy wéyee si ñoom lu bëree bëree bëri xale jigéen surtout dafa war a jàng liggéey mais aussi xale bu jàngee 9 mois danga koy may ci 3 mois yi waxul la mu foo lépp. mais aussi mun na di def liggéey mais tamit di jàng parce que bu dooree si kër ga wala mu topp yeneen liggéey bu ñëwaatee. niveau bi de wàcc te bu niveau bi wàcc au lieu moom mu avancé dañuy recommencer waat à zéro maanaam lu gën mooy xale bi donte mi ngi liggéey parce que jàng kase kase si tamit si jigéen jigéen dafa war a mun dara jàppale yaay jeeg yooyu noonu yëpp si éducation bi la bokk mais aussi ñi koy may tuuti muy jàng ak tuuti muy foo di libéré wu tuuti parce que neuf mois yëpp nga jàng ko il faut nga reposer xel mi tuuti mais aussi il faut nga préparer année prochaine parce que à chaque fois lan la objectif bi nga bi nga teg la ne ah man kat ren maa ngi woon par exemple maa ngi CI bu ma jëlee première naa def le tout ba déwén naa jël première mais fekkente ne xale bi da nga koy jël di ko yóbbu muy liggéeyaane yooyu nag xel mi génn na ci jàng meeg jàngale bi suñu waatee niveau bi day wàcc moromam ñi raw ko si ñu doon jàng def ay cours de vacances ak yooyu day yomb maintenant fekkante ne même bu liggéeyee un mois sax deux mois yi des moom dañ ko war a def cours de vacances su ko defee mun a relever niveau yi soxna maam Diarra Bousso Diouf bokk ca jàngalekat ya foofee ca complexe Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma nekk foofee ca Xayra 2 ka jiite école ba nag di Serigne benn Amar ak Serigne Moustapha Diop ma bokkoon ca délégation ba bawoon ca école Serigne Cheikh Gaynde Fatma bi ah, teewlu ngeen leen démb ci sunu xibaaru guddi gi mbokk yéen a ngi woy di déglu xibaar yi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñetti waxtu tegal na juróom-benn simili ca Touba Kenc guy duy sangu jàpp dalanga bu ñu wéyandi ci xibaar yi. rajo UCAB FM 103.5 ci wàllu jàng ak jàngale googi ñu newoon ci la ñuy des it euh, waa digaan nag euh, seen école boobee di euh, daaray alxuraan gi nag amal nañ ñoom itam seen conférence loolu yi waral nag imam ba di Cheikh Sadibou Sow yëkkati ay kàddu rek profiteurs yi ngir woo ñi la di kilifa yi ngir ñu jàppale leen xam ne rek mooy nee na njàng mi ci wayjur yi kat li leneen lu mu xam ne tamit mu nee na ñi ngi leen di ñi ngi woo kilifa yi ngir ñu gën leen a jàppale rek ba seen njàngin woowee gën a ñoŋ foofee ca digaan imam Cheikh Sadibou Sow ay kàddoom ñaanandoo teewlu ko xale yi di tari te wax dëgg yàlla njàngin biñ fi njàng wax dëgg yàlla njàngin bu rafet la njàng bu am solo la te jullit amul lu gën alquran métti na moom métti ndax euh, xamal xamal nit alquran rek moo moo njëkk jafe ah, te daara ni muy doxee léegi daanaka lu métti la parce que daara dafa soxla ndimbal te daanaka li gën a néew ci ndimbal la ñu am parce que euh, état war na ci jàpp ah jullit yi war nañ ci jàpp mais njàpp bi des na parce que fi mu nekk nii xale yi dañu fay te ñun it dañuy participer chaque weer fonctionnaire yi nekk dakaar ak ñi nekk fii yëpp kenn ku nekk bu weer di dangay jël ci sa alal dugal ci daara ji ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci ci ci ci kër gi di sa di diigaan di saytu daara bi ñun ku nekk it bu weer dee da ngay fayal sa élève te xam naa ne métti na ndax boo yorul benn élève ñaari élève daanaka day day day métti boo ci yoree lu xaw a takku tuuti pay bi dana xaw a métti te xam naa ne ñu ci gën a bëri bëgg nañ jàngale mais seen loko ñu moo jotu seen gannaaw loolu daal moom xam naa ne moom problème waaw alquran moom jullit bu ne da nga war a xam euh, la njëriñ bi njëriñu njëriñu alquran moom jullit bu nekk da ce war a da ko war a xam da cee war a tey it di ci def alalam ndax ñun ñëpp ndax bu net bu tey dañu ne seeti leen sëriñ bi mu tudd ko bu nit génnee àdduna ñu ne seeti leen sëriñ bi kon sëriñ bi yorewul ngànnaay benn ngànnaay lu du alquran kon alquran bi lu ñu ci mën a jàppale rek ba ba nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi gën koo mën a xam ba mën cee dugal seen doom yi suñu suñu njëriñ la waaye am na ñoo xam ne sama zaar yi dañuy defee ne boo yóbbuwul sa doom daa école ba mu jàng français du mun a tekki dara mais alquran bi ak ak ak ak français bi ak lu mu nit mën a jàng baax na waaye jullit bi moom lu mu ci war a jiital mooy alquran la war jiital ndax alquran bi moo la moo tax xam yàlla mu tax laa xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tax laa mën a roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko xamul doo ko mën a a doo ko mën a Sow mooy imaamu euh, grande mosquée bu Digane keneen ku fa yëkkati kàddu moom it Cheikh Sadibou Sow la tudd moom it moom mooy président daara ja yëkkati na ci ay kàddu nee na dëkk boobee ay jafe-jafe yu méttee métti ndax nee nañu bu weesoo yoon weewee dox seen diggante ak taliba ay jafe la ñuy am ah, ci lu jëm ci wàllu ndox ak courant bu dee ndox ma moom nee na saasu rek dañ cey nemmee ko ab baisse de tension bu saasu ne rek da leen di jural ay jafe-jafe Cheikh Sadibou Sow ay kàddoom ñaanandoo teewlu ko autorité yi ñu ci département bi nañ ci jàppale bu baax ñu am daara parce que loolu euh, avant tout c'est l'éducation l'éducation dafa bokk ci li do li dundal réew li doxal euh, dëkk bu amoon internat fii dinañu gën a yombale lu bëri parce que booy boo xoolee ci biir jumaa ji la ñu jàngee espace fu ñu nekk pour mu gën a am yaatu pour ñu mën fa nekk di jàng loolu tam dina am avantage ci njàng mi ko jafe-jafe yi ñu am mooy wàllu ndox am nañ jafe-jafe ndox. ak santé bi ak yoon bi nag commencé woon nañ ko defar mais dafa taxawaatoon. xaw ma moo ko taxaw parce que ay ndaw lañu seggul li ne ci biir mais commencé woon nañ ko liggéey gis nga ni mu euh, commencé nañ def ay xeer pour def ko tali mais liggéey bi dafa arrêté woon ñu ngi lancé tam ci yooyu fekk lu tax liggéey bi arrêté nañu ko jàppale balaa gàmmu xamuñu ko mais nañu jàppale balaa gàmmu gi parce que xam na fi mbooloo moo fi ñëw gàmmu kon ci ci gàmmu bi nawet lay nekk yoon suuf yi day am ndox oto yi mën nañ fi ngiroo mën na fi indi ay problème luñ ci mun a def nañu jàppale tali bi pare voilà gàmmu ñaareel dañu am problème ndox surtout mba kii bi moo fi nekk te xam naa surtout bi dama village yi mu encouré dafa bëri mun na am jàpp pression ndox bi ndox bi ay 23 heures jëm 0 heure ba minuit une heure du matin lay noonu du indi ndox yenn kër yi ñoo yenn koñ yi ñoo am ndox mais yeneen ci biir dëkk bi duñu am ndox forage bi ngaa bu la nekk ngaa ngaa bu la nekk côté boobu da am na ñu ci joytu bu baax a baax a baax ci ndox mooy lépp te souvent fii gàmm bu rëy léegi mu ñëw ndox moo am parce jàpp une heure minuit une heure lay ndox bi di ñëw ba 7 heures suba mu dem. Cheikh Sadibou Sow mooy euh, jiite euh, daara joojee nekk ca Digane mooy euh, président bi ñu ngi leen ko doon wax sànq ci wàllum politique la ñuy wax professeur Daabu Daouda Ndiaye mi ngi woon fii ci dëkk bu sell bi de Touba di amalub ziar ci kanamu xalif général des Mourides Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou moom nag potaxlu na ca nee na samp nawu ndëndam rek ngir nekk candidat ci élection yi la ñu jëm ngir laaj bopp réew mi professeur Daouda njaay ay kàddoom ñaan doo teewlu ko. Euh, wut si ñaan jël si ndigal sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké Bachirou yàlla na fi yàgg te ak képp kuy xalif bu toog ci Sénégal ci Sénégal ñëwoon fi pour wax ko ne bi ñu amee ndigalam ba pare bi ñu amee ndigal Touba ba pare te dañoo bëgg liggéey pour Sénégal pour nekk président de la République du Sénégal dafa doon jar bu ñu ko waxee ba pare ñëw teg ko loxo yi tàllal ko loxo yi pour mu ñaanal ñu lu ñu def moom barkeel ndax ñu senegale lañu waaye jullit lañu waaye murit lañu ku nekk sa kër nga am Sénégal nag benn la waaye ku nekk sa waajur nga am ak sa kilifa moo tax mu ñëw tàllal ko loxo yi sañu moon def dara ñëw ma ak moom wax ko li mu li muy demee ak li ma bëgg pour réew mi li ma bëgg pour xalif diine yi li ma bëgg ma bëgg fépp ci Sénégal mi dina bàyyi loolu tax ma ñëw tàllal ko loxo yi bi ma ko ñaanalee nag ba pare ba jox ma ndigal ma ne tey mën naa am naa sañ-sañu boo xoolee sama jaar-jaar ci kàttanu yàlla boo xoolee li nga xam ne liggéey nañ ko Sénégal xam Sénégal am loo xam ne indil nañ ko Sénégal ci wàllu xam-xam ci wàllu liggéey ci wàllu wér ci yaram ci wàllu social depuis ay juróom-ñaari at léegi ci suñu mouvement social action xam Sénégal nag parce que gox bu nekk dugg nañ fa gox bu nekk def nañ fa dara xam lan mooy métti ak lu méttiwul ñu jàpp war nañoo mën a ñëw sukkandiku ci li nga xam ne njiitu réew yi fi nekkoon liggéey nañ ko muy liggéey boo xam ne jàpp nañ lu rafet la liggéey la boo xam ne ku ci nekk bay nga sawaar ñu jàpp ne loolu bu fi nekkee ak li nga xam ne ñun jàpp nañ am nañ ko ci xam-xam jàpp nañ ko ci relation ci possibilité ñu jàpp ne ku ci nekk ci ñun am nga droit boo amee yooyu qualité boo amee yooyu yéene boo amee yooyu possibilité nga war a mën a ñëw nag ne ah man kat bokk naa damaa war a bokk fi ñuy dogale waaye boo boo mënee bokk fi ñu dogale bokk nekk kuy dogal moo gën mais nag dogal boo xam ne la dama ci bëgg ànd ak ñëpp man bëgguma xam gauche xaw ma droite dëgg la man sama bopp laay demal mais tal dama tàllal loxo sénégalais bu nekk foo nekk pour se li nga soxla li nga bëgg ñu ànd ko ñu defandoo ko pour Sénégal mu nekk parce que benn Sénégal laa mu nekk benn bopp ñu dóorandoo di xàccandoo loolu mooy suñu njariñ te loolu la ñu xam Sénégal xamul leneen lu dul loolu te loolu laay ñaan ñëpp ñu déglu ma ci ñu ànd ci liggéey pour que buy am kuy bénéficier wu muy sénégalais boo xam ne ma nga Touba ma nga Fongolimbi ma nga cetera mais doomu Sénégal moo ciy bénéficier muy Sénégal. kookooy euh, professeur euh, Daouda Ndiaye ñëwoon kon ci dëkk bu sell bi la di Touba ngir amalum ziyaaram noonu mu ko xamle nag euh, candidat la fas yéene doon ci élection yi la di ñëw mbokk yi kon lii mooy li fi ruuse woon ci ay xibaar nes kiis ñu defuk fàttali ci li ci gënoon a fés. xibaar yi fii si UCAB FM ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye. bokkoon na li ci gënoon a fes ci xibaar yi ñu leen ko doon faram-fàcceel ndaje mu Touba ca kanam amaloon ak kilifa yi yor wàllum ndox mi ne fii ci dëkk bu sell bi de Touba ginnaaw ñoom ñu ji waa kanam ba ñu jotee ndigal ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha moom rek ñu gën a jàpp ci ndox mi ba mu gën a mucc ayib waaye tamit jafe yi ñu ciy nemmee ko fii ci dëkk bu sell bi la di Touba mën a deñ ba set wet ci ba tey wax nañ ci wàllu uh, jàng ak uh, jàngale wax ci fin d'année bu conférence bi ñu ko doon amal mooy école Khayra 2 bu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ba nekk foofee doon amal ci seen njiit di Serigne benn Amar loolu yi waral délégation bu takku ba woon ca école Serigne Cheikh Gaynde Fatma ba ñëw fa waaye itam kilifa yu takku daje woon fa teewlu ngeen kàddu yu yëkkati nañu ko ci xibaar yi ba tey mbokk yi wax nañ ci bisub xasida bi ñu fas yéene amal wa seen njiit di Serigne Youssou Diop yëkkati ci ay kàddu ngir delsi bisub ginnaaw suba bi ba tey wax nañ ci wàllu faj ak faju campagne prévention simio prévention du paludisme ñu fas yéene ko amal ci dëkk bu sell bi la Touba muy ay fan yu ñu ngi ko fas yéene door fukki fan ak fukki fan ak juróom-ñaar loolu yi waral nag waa district sanitaire bu Touba doon amalu ndaje ngir rek gën a ñaax askan wi teewlu ngeen ki di docteur Mbaye Ndiaye ci xibaar yi waa ASCODEL di association communautaire pour le développement local doon amal ab dañu doon tàggat askan wi rawatina waa Mbàkke loolu yi nag waraloon ñu amalu cérémonie tàggat lu toll ci fukki juróom-benn fukki ndaw ak juróom ah, cérémonie de remise de diplôme ba ña ngi ko doon Diop ziar moom nag xam le ne samp ndam dëndam ngir nekk candidat ci élection yi la di ñëw mbokk yi lii lañ amoon yéene àgg leen ko ci ay xibaar Cheikh Bey mooy ki newoon ci machine bi Mamadou Moustapha Ndiaye mooy ki ko doon jottali rédaction bu rajo UCAB di leen jox dig daje incha allahu ci xibaaru guddi gi yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu defal jàmm sutur ak teranga barke borom dëkk bi ñu doon àddoo ngeen di teewlu jërë ngeen jëf